ñu leen bëgg a parce que suñu biir ñun événement la lañuy yëngu ak social bëgg a feeñal ñi nekk yoof bëgg a feeñal jeune talent yi nekk yoof sur ce on a jour yi am nañ sponsor Ran Style euh, Bilal Fashion yoof Mbooloo TV XL Mami Queen Makeup ak Joe Black Black and Black et tant d'autres ñeneen ñu bëri sur ce ñi ngi woo mairie Yoff mu jàpp si

qui se nomme les délices filaire, lay le 10 on donne rendez-vous ñun pour waa Gep, gépp ñu ñëw jàpp ci bés bi xam ne ko 100 pour cent la pour Yoff donc artistes invités on aura hum, Paco Brise Gan Prince Boys Met Boys et tant ak beneen artiste invité yam yu un yaa nga xamante ne pour ñëpp mën ko ne gis lu rëy lu rëy xam ne mosul am waaw mestre nak moy ko nek mestre El Maestro moy gérer bis bi le jour J nous sunu sponsor leader Modou MD collection tamit le jour J na def une surprise ba xamantene pour di ñew juste pour couple donc def surprise bu vous. donc pour un karaté inshallah. Préventi déjà disponible ko bëgg info line bi 78 539 85 76 merci. mbokk yi ñoo ko déggandoo kon ni ngeen ko déggee noonu di ko seetaanee noonu ñu ngi leen di woo incha allah le 10 gaa yaa ngi nii le 10 nag doon na mbir moo xamante ne nii maa ngi ciy woo képp koo xamante ne nii yaa ngi yeewoo Ngor Wakaam yoof ba parcelle incha allah le 10 à partie de 20h na ñëpp ñëw 4000 mooy prévente bi bu dee benn nit bu dee ñaari nit nag nga couplé ki nga bëgg ça fait l'occasion nga xamante ne nii. ñaari bés rek wala ñetti bés rek ba ñent nañ ci tek rek saint valentin bi daal di dik kon couple yi ñu ngi leen wo inshallah di wo mbolo mi yeb ngeen daal di yexé ci bés bobu nonu inshallah allah ku ma fi dëgg dag na man massa te dina am ay artiste yu mag yo xamantene dañ fi tew kon nak ma ngi leen wo woo jëf ok pour man dama feebar ndeke dama wét tellement dama la tam am sama wét xam naa quelques jours nga texte mën na def naa message appel vidéo am mu ngi bëgg soof naag baby te ñu take see bi no matter what you talk about still my baby I'm so brave not a girl you my lady even know where you gotta be my baby yes my honey ci leçon bi mu la joxoon donc mokkal jongo ma moo ko poj wala yaay ponkal saay ma feebaree yaay ki ma doon tal wallaahi doon jën sax yaay sama sompaat yow mënoo comprendre fi mu la defoon si xoolal bi dafa ponkal jege ma danga ma sori su ma soñoon danga may sampal te sama ndaanaan bëri fu la jom caractère ñu bëri nawoon nañ si yow mi eh le 10 fii lay xewee ah weta smoking every time yeah baby fan nga nekk le 10 laa doon xaar yaa kon sama weeru waay yoon bu baax bi ak bu bon bi woon ma fan laa jaar yeewu saa bi bari yo yéen ñëpp ñu ngi leen di bëgg le 10 février 2018 au place la joie big up waaw waaw c'est Prince Olcé ñu ngi leen oo le 10 si benn dîner de gala bi am à la salle de la joie 10 février incha allah bu kenn rate yeah 10 février, vous êtes tous invités à la place de la joie avec Prince Olcher, Gangue Winner Gang, Mad Boy, Poco Breeze et plein d'autres artistes surprises. Quoi. Vous êtes invités, vous êtes invités. Samedi le 10. <laughs> yeah. 10 février, vous êtes invités. Prévente 4000, jour euh, prévente 4000, couple 7000 francs. Madame, vous êtes quoi, Tamit? C'est à 7000 francs.